yow wa saab l'équipe Ela ay caxaan kaana yu mag a mag direction Ndakaaru incha allah Omar Ro mu demee noonu maa jàmm mbokkum yaay the king of the waa kaana bu mag a mag na gars fer fair play tubaab du ma mu naar borom réew maa ngi noonu di ñëw son excellence na gars yi xaar ñuy bale nañ bale ñuy peinture territoire yi nañ peinture territoire yi kap borom Paris jërëjëf jërëjëfati Sow Gueye ci coréen du ay caaxaan de na gars yi fair play Baye Sall xeere na Omaro la si Guinée bi. waaw incha allah rabi pare dëgg la. dëkk nit ñu ñuul ñi ak dëkk ñu weex ñi. fuñ ci def ñetti fan rek doy na dañuy tàbbi ci yeneen gox ñu fasal ci koo. dëgg la te fi mu wax ak yow ñu ngi Charles de Gaulle dëgg la fan lañ fay def dañ koy dëgg la te buñ tàbbee Guinée gis lu doy waar. waaw. ñu waajal leen ay yaata yato bi. dama la dénk ñaari baax. waxal mu gaaw. dugg dugg xël na dégg dégg xël na kar ba xël na njàpp xël na waaye ma sa gën a gaaw wàcc moo daan naa la wuru ku daan na di fete ko waajaa ngi barke Serigne Saliou waajaa ngi the king of the waajaa ngi the king of